salaamaaleykum ah, mbokk internetu ah, kii di wasaare ak ah, kii di Dakar midi tey ñu nekk si appel bi nga xam ne Cambérène mu nekk 143e édition ginnaaw bi deux éditions yi nga xam ne amul Covid bi ñu ngi lay ñu ngi leen di delloo ziar waa wasaare TV di ci jiital kilifa gi ci yàlla jiital di ci teg mbooleem ku mu ilif di leen jaajëfal lu jiitu ñuy wax dara ndax visibilité bi ngeen di jox bis yu tëdd yi muy bisub naa Limaamu ak bis yi mel ni moom yàlla na yàlla fay leen. ñu ngi leen di ziar di ziar mboolem internet yi jàkkaarloog ñu. tey ñuy fêté cent quarante troisième édition appel. bi nga xam ne deux deux deux épisodes yi nga xam ne deux sa yi waroon am. Euh, Covid 19 bi moo tax amul. na noo noo ko ak euh, appel bi ren ji waaw damay wax ni sant yàlla la. damay wax ni yàlla dogal na. Covid bi ñëw fi. waaye bi muy dem la mu metti metti ndax li mu jël ci ay kilifa bari na. waaye la muy metti metti la ca neex mooy sunu réew indil nañu ci ndam lu nu masa masuta am yàlla dogal lu bari di dem tey xalifa bi ñëw uutu Serigne Ablaye ñu war a defaat premier appel ginnaaw bi Covid bi xewe wàññeeku ñu ngi ñaan ni mag ñi demoon ba fàtte pest ba yàlla na nu demee noonu ba fàtte Covid bi ti bokk ci ñi kay nettali yàlla dool nu suturaal yëg-yëg bi ñu ci am rek mooy sant yàlla. te xam ni sunu dund ak nattu moo ànd ñu ci sant yàlla di wax ni muy neex dañuy sant te mu naqari dañuy sant macha allah. muy neex dañuy sant muy naqari dañuy sant appel bi dafa tombé lii di imam Sall wax ay propos yi nga xam ne yu déplacé ñii di chrétiens yi. en même temps imam Ndaw ñu convoqué woon ko fële ca euh, tribunal bu Pikine. en même temps ak homosexualité bi nga xam ne am na doole lool lool fii ci Sénégal. waa xam nga dafa am loo xamante ni sunu borom moo ko saxal. ñun ñi gëm yàlla gëm yeneen yonentaam xam na ni islaam mooy dëgg waaye nag ñoom lañu jàpp mooy sunu mbokku chrétien yooyu di ñu baax ñu yaru ñooñu dañ leen di delloo njukkal di leen ormal ndax sunu boroom moom moo nu wax ci alquran ni laa ikraha fi diin gis nga bul ni lii laa gëm rek ñeneen ñi dañ ciy nekk gëmal li nga gëm di wax la la yàlla wax loo leneen lu ci ñëw nga sant ke yàlla bi ci des mooy homosexualité contre nature la te sunu mag ñi xeex nan ko ba jóge fi kon loolu ñun du masa mas ànd ci lu ko fiy indi te képp kuy xeex ngir loolu bañ fi dugg ñu ngi sa ginnaaw ci ay ñaan même sunu gisul te gëm naa ni nitu yàlla yëpp du nu mas a ci luy yàqan njaboot gi ndax ñun suñ fi masee mënee nekk tey ak ñuy dooleel homosexualité sunu mënee juddu ba nekk fi tey parce que yàlla da leen boole góor ak jigéen. inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa shu'uban wa qabaila li ta'arafu lan mu ni inna akramakum inda Allahi atqaakum waaw ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla maa leen bind ci jëm bindin yu wuute góor ak jigéen ngir ñu daal di développer àddina bi ci ay njaboot kon keneen ku ñëw bëgg indi leneen yaa ngi indi lu yàlla gërëmul lu yonent bi gërëmul lu fi mag ñi bàyyiwul te loolu bokkul ci suñuy valeur te duñ ko rafetlu ba ilaa yow mi diin. lan mooy doon dénkaane mooy ñëpp a dal ndax maam Seydina Limaamu dafa ni inna zamana taraba waxtalata wa zalika fana fanzuru kayfa kaana al in afna tasuul baqiya mu ni jamono jaxasoo na jamono yëngu na mu xool ndaa li ngay naan. su demee ba lëñ ja def ci suuf mu ni soo ci bëgg jariñ ci ndox mi dangay ngay bàyyi ba ndox mi daal nga wooy ci kaw àddina foofu la toll seenu maam Cheikhul Khadim dafa wax ne haza zamanu zamanu sukut wa zamanu luzum fil buyut nee na jamono la joo xamante ne jamono noppi la ci lu la amalul njariñ ak di nekk ci kër yi bañ a dugg ci lu kenn xamul ñu dalal xel yi dalal xol yi jaamu yàlla rafetal sunuy diggante te xam ni ñoo bokk sunu réew senegal mooy Sénégal rafet la.